salaamaaleykum mbokku téléspectateurs yi salaamaaleykum soppeek xarit yi salaamaaleykum fu doomu Sénégal mën a féete ci àdduna bi di ñu seetaan ñu ngi koy nuyu di ko dalal ak jàmm ci kanamu télévision Futur Média di leen baalu àq bu baax a baax itam di leen baalu àq ndax àdduna noonu la ñu ngeen nuyu sunu PCA sunu euh, mboolem directeur bu nekk ci biir kër gi nu ngi lay nuyu macha allah di leen ñaanal yàlla wér mu ànd ak gudd fan. projet yi macha allah dooleeku te lépp sotti ñu ngi ñaanal itam ñeneen sottile mooy ñi nga xam ne ñooy sunu ay kilifa diine ak sunu ay kilifa aada ne saa bu ñu yeewoo am na lu ñuy bëgg ci dëkk bi am na lu ñuy bëgg ci askan wi yal na leen ko yàlla defal macha allah te ngeen yàgg fi mu ànd ak wér ak barke macha allah ñu ngeen a dugg nag ci kër yu mag yi këru kër boo xam ne rek kilifa diine ngi fa toog ñu ngi lay wax salaamualeykum di la jox sa wàccuwaay di la tatagal di la ziyaara di leen ñaanal yàlla nga yàgg fi lool te mu ànd ak wér ndax sa taxawaay am na solo lool ci réew mi macha allah noonu la ñu nuyoo tey xalifa généraux yi boole ci nag cofeel gudul jeex ne àdduna lépp cofeel la macha allah jaboote dafa métti moo tax saa bu nu xëyee nu ngi leen di baalu àq daa dee wax salaamaaleykum mbokk yi dugg ci clinique yi opito yi ak dispensaires yi di nemmeeku malade yi fa nekk di leen wax massa coono di ñaan yàlla wéral leen te bañ a tëral kenn macha allah ñu ngee bàyyi xel itam docteur yeeg aide yeeg ak ñi nga xam ne ñooy infirmier yi macha allah ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen ñaanal ñoom itam yàlla bu leen dara jot gannaaw ñoo ñuy faj daa dee wax salaamualeykum ba tey dem seeti ñoo xam ne ku dee xool àdduna danga naan dañoo nekk ci xat-xat nekk ci jafe-jafe yàlla la neex rek mu defee noonu bu ko neexoon itam mu defee neneen noo xam ne duñ ca mën dara waaye gannaaw caabee leen féete gannaaw dañuy wax alhamdulilahi rabil alamina te ñaan yàlla mu muccal leen ba ngeen gaaw doxi seen ay soxla ku ne ci àdduna rek natt wi dalay dab dana la daw da dal loo daw daw daw ma nga tege rek yàlla ñuy musal kon yàlla na nu yàlla musal bu ngeen fa jógee lépp loo xam ne rek dox ngeen ko yal na ci yàlla roof barke àdduna demal maa ngi ñëw la am na ñu ñu baaxoo woon di ànd ak ñoom tey ñu nekk ci njégal sunu borom ñu ngee ñaan yàlla njégal googu yal na ko yàlla yokk ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam suñu wayjur yi baax yi teel a dem ñu ngi leen di ñaanal yàlla suñu wasila yi suñu soppee yi macha allah ñu ngee ñaanal bu baax ñoo ñooñu macha allah yal yàlla yóbbu leen du duñu fàtte nag góor gu tedd gi nga xam ne saa bu buñ fi dikkee bu nu tuddee turam dafay mel ni macha allah mbooleem kilifa diine bu dëddu rek tudd nañu sa tur muy maam Cheikh Tidiane Sy Al ak ay soppeem yal na yàlla tas ñu ci seen barke yóbbu leen ca aljana yi gën a kawe te ñu des fii ñun itam di wéyee seen ay digle daf cay am solo lool lool lool ñu ngi ziyaara Ndoye Bane moom xam naa ne dafa am activité boo xam ne du ko fàtte macha allah ndax xam ngeen ne piir nag bu nu ko waxee xam ngeen ne dëkku alxuraan la dëkku xaali amar Fall nu ngi leen di ziyaara nuy ñoom baay Baddo bu baax a baax di waajal nag gàmmu piir bi ndax xam naa ne la 7 décembre lay doon Ndoye Bane dina ci dikk ci kanam indi ay leeral. Hmm. ñu ngi koy nuyu bu baax a baax a baax. nuyu waa Tiwaawoon Ndiassane Touba wax dëgg yàlla saalum Saloum bawunu kenn baw bawunu kenn ñoo ngi leen di nuyu ànd ak cofeel Ndoye Bane maa ngi lay nuyu bu baax a baax. <coughs> yaa ngi pare gàmmu bi. Eh, waaw waaw bu baax a baax a baax. Mm-hmm, di mm-hmm. ñaan rek yàlla nañ ci yàlla yóbboog jàmm ak salaam. amiin la satt fële ca Pire. Mm-hmm. tamit di ziar sunu sëriñ boobu di. Euh, sëriñu seen di Mbàkke moom tam di représenté fa Serigne Touba fële ca Pire. moom day gàmm le 30 incha allah mooy samedi bii di ñëw. ca Pire le 30 bii. waaw xam nga Pire moom ñaari gàmmoo fay am. premier premier gàmm bi la 30 la benn ba te des euh, le 7 la bi nga xam ne moom mooy moom la Sénégal yi bari xam di waa kër sëñ Moustapha Cissé. Mm-hmm. Tafsir Abdou Cissé Amadou Cissé. Mm-hmm. Moustapha Cissé euh, Serigne Mansour Cissé. di ziar famille boobu yëpp di ziar monsieur le maire Serigne Boub mhm. ak ñëpp di ziar sunu xalif ba sunu sama Serigne ba Cheikh Bassirou Abdoul Khadr mhm. di ko ñaanu mu yàgg lool te wér tey ñaanal ñëpp jàmm rek amiin yàlla na yàlla def ñëpp am jàmm ñi nangoog ñi nanguwul ñëpp yàlla nañ am jàmm mhm. ñi seetaan ak ñi seetaanul yàlla na am jàmm jàmm moom bala nga xam ne jàmm baax nga ñàkk ko waaw réew mi ñëpp nañ am jàmm daal surtout sunu mbokk ne bitim réew daal ne yàlla may jàmm bu baax a baax may leen ay koppar bañ mën a ñëw teral waa réew réew mi fekk tamit waa réew mi tamit yori koppar ñu teralante rek mhm. waaw moo tax bu ñu nee teraanga bu yokkoo noonu dooleeku ma ni déedéet teraanga bu yokkoo mhm. dafa war a rataxal euh, jëflante mhm. jëflante dafay gën a yokk kay loolu laa yàgg di wax Marie Camara Ba kuy reetaan ne ma moo ne awa wax nga dëgg noonu waru ci woon am dafa waral rek yombal li nga xam ne mooy jëflante jëflante ay baax baax non yàlla nit nit ku ñuul wala nit la yàlla binde noonu par mais nag ginnaaw ci dëkk bu nit ku ñuul ñi la nekk noonu yàlla moo binde noonu su su xaw ma yàllaa ko bindee xaw ma nit ñi ñëw ko cultiver mm-hmm. soo dee soo soo soo yorul dara mm-hmm. tekki woo dara mm-hmm. mënoo dara seen xarit ngay doon waaye suñ la gisee ngaa ngi teg pas di avancer tuuti rek dañ lay xaw a mere waaye nag waruñu laa mere yow déedéet yàlla la ñu war a mer na yàlla yor cër di ko joxe li <laughs> naan war waykat bi naan ko mer karamel yàlla waaw waaw mu mel su la neexul mm. bul ko meree parce que Eva deful dara boppam nii. xam nga ndoy baan mu mel su la neexul bul meree ndoy baan mele yàlla sunu borom yàlla su ko neexoon def ndoy baan mbóot. mbóot men waaw su boobaa kenn ah. dooma kenn dooma rek yàlla yàlla dafa silvissé de voilà mu def ñu nag sopp fonk ñu lool boo tax yàlla def ndoy baan coofe roofe bëre et yooyu nag xam nga su la neexul da ngay wax ak yàlla Miya Ndour bonjour yow ak sa équipe yëpp ñu ngi ah, leen di nuyu du ma coof di rafetlu taxawaayu ñoom jeena ba Seydou baax ñoom bijou gis naa leen xale yi branché yooyu ñoom mado hmm. man bu ma dellu woon di gone ne yéen lay mel kon boog soxna Mame Sophie Ndiaye la ñu fi àndal moom nga xam ne moo nekk chargé de l'accompagnement de victimes euh, à l'observatoire euh, de de lutte contre les maltraitances ah yi nag ak bu ñu ko waxee rek abus sexuel daa dee dugg yooyu yëpp ñoo ñoo bokk ñoo bokk fu leen di boole rek moom mu mel ni nag dafa ñëw teew ci plateau bi ñi nga xam ne ñoo ko jiital ndax émission bi bu ñu ko waxee rek mooy Union européenne moo ñu sponsorisé fego ci ak ministère de la femme ñuy ñaanal suñu ministre yàlla defal ko jàmm saa su ne ñu wax ko moom itam dañuy bëgg sax mu mu daal di sponsorisé wareef parce que wareef lépp loo xam ne rek daf koy traité nañu xam ne dafay laal jigéen suñu waxee nañu sàmm euh, yi ci àdduna bi jigéen lañ cee njëkk wax kon boog ministre de la femme daal yow ñu ngi lay ñu ngi lay xaar euh, soxna Mame Sophie bu noppee ñu daal di koy jox kàddu gi ko bu baax a baax Euh, soxna maam Sophie ñu ngi lay nuyu bu baax a baax. d'accord tata Eva merci beaucoup. bu ma la waxoon nga présenté wu au grand public yow yaay kan. d'accord man maay maam Sophie Ndiaye. <laughs> déjà di la nuyu di nuyu Ndobane. sañ-sañ bi rafet na lan la la wala. waaw <laughs> na ma. man nii rek lay gis. waxal waay man ci yow lay jàngee naa la audité yow lay jàngee yemoo rek ci njàngale mu professeur sëñ Mor Mbaye yaa ngi ci yeneen <laughs> parce que foofu amul waxal waay. ay ca topp ma <laughs> ay ca ñu ngi lay bàyyi nga nuyoo. <laughs> merci beaucoup Tata Eva donc euh, maa ngi nuyu ñëpp. di nuyu mboolem téléspectateur yi ñuy seetaan. Mm-hmm. donc euh, di nuyu fa ma jógee wàcci waawan mm-hmm. di nuyu sama papa Omar Sall Ndiaye di nuyu sama yaay également ji ay satu si. Mm-hmm. ba ci waawan donc di nuyu également sama rakk yi sama membre de la famille tout le monde. mais également di nuyu sama famille de dakaar Euh, di di ko jiital nag sama tante Ndeye Kandji donc vraiment euh, taxawaay bi rafet na ak mes cousines. sama ni ñu la gunge neex na ma gunge neex na ma. Mhm. donc voilà yow teguñu la benn maltraitance ci gàttal. <laughs> waaw vraiment ah, <laughs> vraiment. seulement di ma accompagner di ma jàppale. waaw <laughs> voilà très bien donc di nuyu également waa Union européenne. Mhm. donc euh, di nuyu waa Union européenne mhm. waa CEGID. Euh. centre de guidance infantile et familiale bi nga euh. xamante ni si fa nekk euh. donc di ci jiital suñu njiit Serigne Mor Mbaye suñu collègue yi soxna ñoom Ndeye Fatou Jean Émile Ourey ñoom ñëpp ma kenn donc euh, di wax rek bisimila encore une fois comme tey ñu ñëwaat rek ci beneen euh, ci même thématique bi. c'est vrai euh, di gën a ñaax rek. Mm. parents yi mais gën a ñaax également état ñu dooleel ñu. Mm. Mm. di ñaax nag mais famille yi. ci biir kër yi surtout yaay yi. donc nañu bàyyi bàyyi xel ci xale yi. nañu delloo xel ci xale yi donc ñëpp cellule familiale. dafa large ba nga xamante ni ñëpp am nañ si wàll que ça soit muy yaay muy papa muy nijaay muy bàjjan ñoom ñëpp am nañ si wàll mm-hmm. donc bu ñu gën a góorgóorluwee tuuti rek mm-hmm. daañ mën a gën a avancer ci suñu wàllu surtout relation mm-hmm. euh, solidarité bu ñu waxee solidarité nag ouverture day am parce que ñëpp a ngi si benn société boo xamante ni ci euh, tànt nijaay bàjjan ñëpp ak ak euh, famille bi xale euh, comment dirais-je relation amicale bi ngay am si mbedd bi extérieur bi ngay ñëw loolu yëpp dalay indil benn ouverture mais des fois am na lu ci laxasu loo xamante ni si boo amaana deful ndànk rek mën na la gaañ mais léeg-léeg nag gaañee bi ci biir famille bi lay doon donc ñu gën a maytu gën a vigilant donc ci suñu suñu ay proche euh, yow yaay chargé